أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حسبي الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wi nu ne rawatina fukki fan yi ci mujj nuyo boobu ziyaar bi ak ndokkeel bi ñu ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xamante ni mooy alxalifa di ñaanal di ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala taxawu ko sàmm ko dëgëral ko wéral ko eggale ay yéene ci lislaam nun ñii topp ci ginnaawam itam sunu borom dimbali ñu bañ ñu bañ a def gannaaw ni ko noonu la ñuy ziyaare mboolem ñi nga xam ne ñooy taxawee néegu sunu borom bi subhanahu wa taala commencé ko ci ay may yi sëñ Mahamadou Mamoun Bousso suñ sëriñ sëñ Afe ak ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di nose liggéey bi ngir mu gën a ñoŋ moo xam ñi nekk ci daaray kaamil yi wala ñi nekk ci muqaddamatul xidma ak fu ñu ci mën a nekkee mbaa ñi nga xam ne dañ fiy jàngale lu demee ne daarul maarif yi wala ko sëñ Moustapha Mbay gi ci penku ñun ñëpp di jaglewaat nag cant ndokkeel ak jaajëfal ci biir muqaddamatul xidma ñi yore organisation bi nose gi ak itam ñi yore wàllum comité scientifique bi ñi nga xam ne at mu jot danañ toog di xalaat di nos yan tomb yi teel jamono moom lañu war a tànn ak ñan lañ ko war a jagleel te ndokkeel googu itam geneen ndokkeel day duggaat ci biir juddoo ci muy ngir tomb bu am solo bii nu tànn tey te moom la ñuy fas yéene jot lente ak yéen di ziyaar itam mboolem gëstukat yi ak jàngalekat yi taw ci jotaay li tax nag ma tudd sànq ne geneen cant day juddoo ci cantu tomb yi muy cant bu ñu jagleel tànn gi ñu tànn tomb tey bii mooy dafa am solo lool maanaam sëñ Abdou Lahad tudd na ko ne ponk la ci ponk lislaam yi moom aj juróomi ponk lislaam yi aj da cee bokk waaye itam da ci am wàccuwaay bu rëy rëy boo xam ne dana feeñ ci kanam kon nag tànn tomb bu mel noonu tànn ko ci waxtu wi itam muy koor nga xam ne aj ñëwagul da ciy baax ndax léeg-léeg jafe-jafe bi mooy dañuy nekk ba nit ñi fabu bay dem ñu leen di wax lan mooy aj nan lañ ko war a waajale nan lañ ko war a nekkee fekk booba seen yitte ak seen waajtaay ak fitna jooju ñu nekk mën naa am yu bare bare duñ ko mën a jàpp kon suñ ko waxtaanee ndoo fii nii ci waxtu wi mel na ne jamono ji ñu tànn jamono ju dëppoo ak moom ni ko sëñ Ibrahima waxee ba ñu tàmbali wax leen wàccuwaayu aj ak wàccuwaayu sax at tey sunu boroom yi dugal ko nag ci biir tomb bu tey bi mooy maqaasid yi jubluwaay yi sunu noppee nag ñëw ci mag ñeeg mag lislaam yi ni ñu ko fonke woon gëdd gi ñu ko joxoon ba tax aj am place bu rëy rëy boo xam ne dafa mel ne beneen ci ponk lislaam yi amu ko ci nit ñi ni ñu koy gisee doo ko jëw nag ci maqaasid yi ci boppam bala ma tàmbali dama leen di jégalu tuuti ndax ñaari bi benn bi mooy ñaari samay waxtaan muqaddima bi day gudd la lay taay ndax dama bëgg suñu ñëwee ci li ñu tax a jóg bu fekk mu leer ci bopp nit ñi su boobaa ñu bàyyi ci xel ñëpp mën cee tolloo niveau loolu di benn bi ci des itam léeg-léeg samay jata samay toog yi ndax dama am jafe-jafe toog moo tax léeg-léeg danay yëngatu ak di changer posture maanaam aw toog yi loolu jafe-jafe la ci man jar muy leer ndax ormay da jumaa ji ormay dëkkandoo Sëriñ Tubaa ci boppam xëy na doon na jar toog benn yoon ba ñu yëngut waaye loolu wax dëgg yàlla sama wér-gu-yaram mayu ma loolu laa doon bëgg leeral ci njëlbeen gi suñu waxee ak tey suñu borom yi subhanahu wa taala fa mu toll dafa war ñu njërët ka leeral ne sunu borom subhanahu wa taala ba muy yónni yónent yi da leen a jox ay bataaxal ay yónent lañ tudd kon dafa am lu mu leen yónni lim leen yónni lu mu doon mooy dafa bëgg ñu leeral la nit ñi aw yoon yoon woowu nga xam ne moom lañ leen di xàllal moo leen di musal ci lépp luy lor ci zahir wala ci baatin yoon woowu nag dafa làmboo ay ndigal ak ay tere ci loo xam ne ci jaamu yàlla la lay aju ak ci loo xam ne ci jëflante la bokk waaye daal lépp lu sunu borom subhanahu wa taala teg ci yoonal yooyu ci ndigal yooyu ci tere yooyu nañu xam ne intérêt jaam yi la njariñal jaam yi la njariñ loo xam ne dafa am loo xam ne fii la mu teew am yoo xam ne fële la ci ëllëg yowmal qiyaam muy ay xikam ak ay jubluwaay yu le yoo xamante ni yu am solo la yenn yi nag xelum kese mën na koo xam yenn yi day jar seetantal bu baax a baax yenn yi nag da ngay nangul sharia nangul yàlla ba maanaam ci cafka ak ci mos ak ci joññoo nga xam lan lay jël waaye sunu borom subhanahu wa taala amul dara lu mu teg ngir coono doomu aadama wala lor ko lu mu tegal doomu aadama rek njariñal doomu aadama ndax sunu borom subhanahu wa taala amul njariñ moom ci boppam amul lu koy jariñ amul lu koy lor yuridu llahu an yuxafifa ankum wa xuliqa al insaanu daifa léegi nag maqasid yooyu maanaam jubluwaay yooyu nag da ci am yoo xam ne dafa sew ba lenn ci boroom xam-xam yi ñoo ko xam mooy arraasixoon fil ilm am na yoo xam ne lu ëpp ci nit ñi xamuñu waaye lu mu ci mën doon ab jullit dafa war a tasliim dafa war a bàyyee yàlla boppam xam ne yàlla moo ko gën a yërëm boppam foofu al imam kii al qaraafi al maliki borom az-zaxira dafa teqale mboolem xeeti jaamu yàlla yi def ko ñett ba ñeenti xaaj dafa am loo xam ne àq yàlla kese la comme lu jëm ci tawxiid li nga xamante li nga war a xamee te jàpp li war ci àq sunu borom la ca yell ak la ca jomb mu ne loolu àq yàlla kese la am na yoo xam ne àq jaam bi kese la su bëggee wax àq jaam bi kese mooy loo xam ne jaam bi sañ na koo jéggale teewul nag àq jaam boo gis àq yàlla nga ci biir ndax yàlla moo ne nii laa bëgg nga defe ko nii laa bëgg nga doxale ko ak diw moo xam ci bor la wala yu mel noonu bor bi waa ji moo ko moom dëgg la kon àqam la kese mel na ne su ko neexee mu jéggal la ko waaye àq yàllaa ngi ci ndax yàlla mi ko diglee te soo ko deful yàgg yàlla da ngeen am aw dig kon ci foofu àq jaam boo gis àq yàlla nga ci biir àq yàlla nag àq jaam mën na cee bañ a nekk ñetteel bi mooy àq joo xam ne day àq yàlla ak jaam ñoo ko bokk te àq jaam bi ëpp ci doole ak nag àq joo xam ne àq yàlla àq yonent bi ak àq jaam ji day am ci biir ñeent yooyu la ko tëkk tëkkal ci biir àq yàlla ji tam soo ko xoolee ba ci biir léeg-léeg àq yeneen mën na cee rax mel ni misaal laa ci joxe mooy julli julli àq yu bare bare da cee da cee am ba ci àqi aji julli ji ci boppam bay wax sami allahu liman hamida allahuma rabbana wa laka alhamd bay wax xunuut àqi boppam mi ngi ci biir waaye àq yeneen jaamu yàlla yi muy ñaana laale ci biir mi ngi ci asalaamu aleyna wa ala ibadillahi salihin mi ngi ci biir suy wax asalaatu ala rasul salaa sallam ak taaya nga xam ne àq yàlla ak yonent bi ak jaam bi julli ak ñi mu àndal ak lépp dañuy mën naa dajaloo ci benn te yooyu yëpp fu mu toll nii maqaasid yooyu day yu am solo ci dundu doomu aadama te loolu julli rek la kon jaamu yàlla yi mën nañoo wax ne li ñu bari bari julli woor natt asaka yooyu yëpp soo leen dañuy àndandoo dañuy àndandoo am lu ñuy jural jaam bi koy def tey maa ngi wax rek ci arkaani islaam yi dana tax mu defaru ci jikkoom dana tax ab xolam laab dana tax mu sawar dana tax digganteem ak nit ñi defaru dana yokk économie dana ko barkeel dana rattaxal ay digganteenam dana yombal ab dundam nga xam ne ci diine ci àdduna ak ci alaaxira yépp da ci am léegi nañu jël arkaan islam yi benn par benn rek ci lu gàtt bu njëkk bi mooy ñaari baati seere yi day ñaari waat yu am solo ndax day tàmmal nit ki mu dëggal njaamu gi nga xamante ni mooy buum gi ko jokkaleeg boroomam subhanahu wa taala da ci wone itam war bu mu war a sellal topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah seere naa ne benn buur amul boo xam ne sañees na koo jaamu mënees koo jaamu te muy dëgg ku dul yàlla kon su boobaa njaamu gi ñëw na wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam foofu mooy diggante mag yonente sallallahu alayhi wa sallam ne muhammad mii kat mooy ndawam kon ndaw li moo dox ci diggante mag boroom da koo war a topp nga xam ne da nga gis ne ñaari baati seere yooyu dara ci ponk diine yi ci def munta wér su laluwul ci fondement mbaa ci laltaa yi ñaari baati seere yooyu kon njariñam moom benn go nga ñëw ci lu demee ne julli julli sunu borom subhanahu wa taala moo ko waxal boppam inna salata tanha an ilfahshai wal munkar yàllaa ko waxal boppam julli ku ko def sàmmoonteeg sàtt yi ay ñaawteef ak def lu bon dala koy dala koy tee def kon gis ngeen jubluwaay boobu dafa leer yàllaa ko waxal boppam nga ñëw ci weeru koor yàlla wax ne day maye at taqwa muy ragal yàlla ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum lu tax laallakum tattaquun ndax ngeen mën caa amee ragal yàlla ndax li tax muy ragal yàlla mooy jom ak ngor moo man woor ndax dañu lay tere lu bare bari loo xam ne dagan na te loo xam ne mënoon ngaa wéet def ko muy lekk ak naan ak ak yeneen yi kon kooku mooy woor azaka sunu borom subhanahu wa taala moo ko xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal ci seen alal azaka joo xam ne da leen di laabal di leen sellal nga xam ne joxe azaka soo ko defee day jariñ ki koy joxe waaye day jariñ ki ñu koy jox ki koy joxe dana ko tàmmal tabe yaatu yéene jullit ñi ci aw yiwam waaye dana ko jariñ itam laabal alalam sellal ko te barkeel ko ñi ñu koy jox itam dana leen jariñ ñu ubbi ko ak yéene ñi leen koy jox jàmm ndax joxe dafa lom solo ci rataxal diggante yi da leen bàyyi xel ñi ngay ñi ngay jox ak ñaan ya ñu ñaan ñaan ñuy tibbee seen xol lay doon di la ñaanal wërsëgu yokku gudd fan di la ñaanal àjjana te loolu ñaan moom du ko gën a rëy kon su ngeen gisee tudd nañ seede shahadatu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasuulullaah tudd nañ julli tudd nañ woor tudd nañ azaka léegi nag aj ñëw aj bi mu ñëwee mooy consécration maanaam mooy tëj yooyu moo koy mottali dafa mel ne da nga doon liggéey sa tabax ba finition des bi aj nag mooy finition bi aj mooy finition bi moo tax moo ci gën a jafe moo tax moom lañ ci mujj wàcce moom la moom mujj wàcc waaye ñaare moom lañ ci mujj def lu tax mu ñuy mujj def aj bari na ndax dañoo waxoon ci koor ne sunu borom subhanahu wa taala maqsad bi mu la bëggal mooy at taqwa mooy ragal yàlla ci koor su dee ci aj nag taqwa bi ragal yàlla gi ab yóbbal la balaa daraa xew da nga kaa war a yóbbaale kon day mujj looloo tax dem aj benn yoon la war ci ci ci dundu dundu doomu aadama jullit bi benn yoon kese la ko war beneen bi mooy aj dafay laaj condition physique bu bare bare maanaam wér-gu-yaram ak man aj dam day laaj ak man ci wàllum koom moo tax nit ki mën naa am lu mu génnee azaka te du am lu mu lu mu demee aj loolu moo tax aj mujj léegi nag seetlu leen nit koo xam ne woor na woorati woorati suñu jàppee ne anam yañ war a woore ca la woore kon taqwa xaw naa am ci moom ndax tàmm na maandu ci làmmiñam tàmm na tudd yàlla tàmm na teey tàmm na yenn tumuranke yi xiif mar téye boppam ci lu mu soxla tàmbul na dimbale tàmbul na ñàkk a nelaw guddi yu mel noonu su ko defee defati ko defati ko ba bu mujj bi wari nañ weeru kori ca diggi wa ca mujj diggi mu dem aji màkk mën naa am dana yóbbaale dara ci taqwaa gi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf koo laaj ko mu yóbbal ndax dafa wax ne alxajju ashhurum maalumaat fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi alxajj gis nga loolu mosul borom di ne aj ay weer la yu ñu xam muy weer lu commencé ci weeru kori jeexe digg jeexe tabaski dana na képp koo xam ne nar na cee aji gis nga baatu farada la jëfandikoo nga xam ne maanaam pasteef yéene moo koy maye képp ku ci nar a aji amul ay caaxaan mbóosóor ci diggante góor ak jigéen amutub caay-caay amut joxalante wax ju dul noona kon comportement ci jëf ak comportement ci wax yépp lay laaj lu mu jafe wa maa tafaalu min xayrin yaalamuhu llah lu ngeen def ci lu baax yàlla xam na kon yàlla teel na laa wax ne ajjay loo am am wërsëg man lu baax laa soxla kon teel ko xam loo ca def itam xam naa ko dama ko fàtte waaye mu ne lu la cay dimbali mooy wa tazawwadu soo bëggee alxajjul mabruur na nga wut ab yóbbal sunu borom itam bàyyiwu la noonu mu teel laa wax nag yóbbal képp jubluwuma ci argent de poche baax na nag fa inna xayra zaadi taqwa yóbbal bu gën bu ngeen mën a yóbbuloo mooy lan ragal yàlla mu ne wattaquuni war ngeen maa ragal nag yaa ulil albaabi su fekkee ne yéen a ngi jëfandikoo seen xel ndax tax ndax la tax ngeen war maa ragal bari na njariñ ya moo ci jiitu ma ne nag aj su fekkoon ñun xamuñu ci ay njariñ su fekkoon ne xamuñu ci sax yool bi waaye gisuñu ci lu may magi lislaam yi ni ñu fonke aj rek doon na jariñ fonk ni ñu ko fonke doon na jariñ fonk commencé ko ci yéen du saa sallam saxaaba yi salafu saalix yi ba ci sunu magi Sénégal yi ba ñëw ci Sëriñ Tuubaa dama waxoon ne aj ci boppam dañ ko yéex a farataal farataal lañ julli ca Màkka ñu farataal koor ca Madina ca at yu njëkk ya ni ki noonu asaka waaye gis nga ci mujj gi lañu farataal aj ci juróom-ñetteelu at ma at ñu sax juróom-ñeenteel lu ko waral mooy sart yi ñu laaj dafa bari waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waaj a aj màkka ni mu ko teel a yëgale ci ngay xamee ne lii dañ ko yàgg foog jaabir ibn abdullah wax na ci xadis boo xam ne mi ngi ci saxiix muslim mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam makasa tisa sinina fi lmadinati lam yaxujja am na juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at ci madina yoo xam ne ajut summa aadana fi laashirati anna rasul allahi xaajun mu ne nag ca nag fukkeelu at ma ci gàddaay bi la ne nañ ma yéeneel ne damay aji ñu teel koo yéene ci dul qaada dul qaada mooy diggi koy ñuy waaj waa Madina ñu jege Madina di ñëw ba juróom-benni fan des ci dul qaada mu àndandoo gaañ jaabir nee na radiyallahu anhu ba ñuy génn mu ne da ngay xool ba sa fa bët yam ci sa kanam lépp di mbooloo nga xool sa gannaaw ba sa bët yam lépp di mbooloo nga xool sa ndeyjoor ba sa fa bët yam lépp di mbooloo ni ki noonu sa càmm nga xam ne maanaam bari na lool am na ñoo xam ne ci yoon wi sax lañ ko dabee kon yu saasam noonu la ko fonke woon waaye itam nit ñi di ñëw ku nekk di ko laaj kii day ñëw naan ko xale bu ndaw bi ndax mën naa aj kii naan ko sama baay kat daa mënut a dafa amatul doole ndax day mag mënut a toog ci ci giléem yi ndax mën naa ko ajal Dubaa Dubaa bint Zubayr muy doomu doomu baay ndax Zubayr ibn Abdul Mutalib mu ne ko ndax da ngaa bëgg aj kon waxal nangam su yàlla dogalee doo ko man mooy li ñuy wax ishtirak al hajj asma bintu umays mooy soxna saydna abubakar siddiq mooy way jurub muhammad doomi abubakar siddiq ak muhammad doomi ali bin abi talib ndax ginnaaw lañu ko ali bin abi talib moom itam ba mu toll dul xuleefa ci la am doom mooy muhammad foofu la juddoo mu wax ko nangam ak nangam nga war a def nga xam ne lépp loo xam ne dana gaar ab jullit ci biir aj xew na ci saxaaba yi ñëw yéen tu saasa laaj ko aj rafet ci la kii mooy ba mu wootee bopp bi ñu baree bare daal mi ngi ci yoo xam ne xëy na li ma ci bëgg jublu rek mooy am solo bu am aj am solo ak yoon saasa ñu ngi ko joxe woon gëdd teel koo waajal yéene ko ba nit ñi ñu ànd ceeg moom xulafaa u raashidun yi noonu lañ ci mel Seydina Abubakar moo njëkk moom la yoon saasa njëkk a yónni mu doon amirul hajj ca atum juróom-ñeenteel ca atum fukkeel ma ci la yoon saasa aj Seydina Omar moom aj na ajati ajati jiite aj bi ndax fukki atam yu mujj rek at mu ne ajal na ci bopp ajam mu mujj da ci zulxijja dafa ñibbi si ay fan yu néew ci lañ ko rey ndax moom ci zulxijja ci lañ ci la ci la ci la shahida Saïd ibn Saïd ba ko day nettali ak Seydina Omar ndeysaan wooye faay ba mu wax ba mu ñëwee ci bopp xaa dafa ñëw daal di jal suuf si ba mu kii rek mu teg ci rida am mbalaanam daal di jaaxaan ci la ñaan ñaanam gu siiw googu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dellu ko te mu bañ a saali noonu ba ci ñu bare bare rek ñoo xam ne benn su dul xalifa bi ci boppam moo jiital boppam aj ji day seet ku mu wóolu borom xam-xam wala saxaaba ginnaaw bi borom xam-xam yi wala waali madina wala màkka wala seen mbokk mu ñu wóolu mu jiite aj ji kon noonu la doon dem ba ci nit ñi benn par benn loolu nag su fekkee ne taxul waxtaan wi jóg dañ koy taxaj ñëw ci benn di wàcc ci ci lislaam ci ci Sénégal Sénégal da ngeen di xool ni mu soree Arabie Saoudite ak ñoom ni ñu fonki aj rawatina ci dix-neuvième siècle maanaam ñaar téeméeri at wala téeméeri at ca gannaaw ndax booba dem Makka yombul waxuma la sore gi waaye waruwaay yi waxuma la waruwaay yi waaye ñàkk dund ak ñàkk ndox ci yoon wi waxuma ne ñàkk dund ak ñàkk ndox waaye ñàkk sécurité bi am ci yoon dafa bari bari waaye boo xam ne bari na ñoo xam ne dem nañ aji def fa xamuñ ci yan circonstance lañ fa def xamuñ ba xam am mara leen rey xamuñ ba xam dañ leen rey ci addu kalpa yeeg ñi jël alal nit ñi xamuñ daal ci yan situation lañu la ñu demee dama bëggoon bala maa ñu sëriñ bi ñu jaar ci ñenn ci mag yi Sénégal yi ak ni ñu gisee aj ni mu transformé ni mu wëlbatee seen dund carrément ku demee Cheikh Omar Fouti Tall ku demee ne El Hadj Mamadou Lamine Darame ku demee ne El Hadj Malick Sy wala ku demee ne El Hadj Ahmad Dem moom dama cee bëgg yàgg tuuti ndax dafa bari lu muy firndeel ci lan moo tax sénégalais yi teg fenn fi aj El Hadj Omar bi mu ajeeg léegi war naa jege. ñaar téeméeri at yaakaar naa sax su fekkee ne ci kii wolof yi da koy mat ndax dañuy wax ne moom mille deux cent quarante et un hijriya mille deux cent quarante et un hijriya ci la aji woon màkk muy tolloog mille huit cent vingt cinq waaye wax leen rek situation bi ni mu demee woon ba muy dem dafa dénkaani daf ko jaral jaam yi mu amoon da leen a tasaare dem jël mbaamam def ci ay yóbbuwaayam benn doomu baayam la àndoon ku jox Ali Ali nag yàlla dafa dogal Seydina Omar bi mu ñibbisi ba mu tolloog li bi ci la faatoo waaye ngir yoon wu ñàkk wu ñàkk sécurité taxoon na alxaajo Omar ba muy dem am na génn xasri goo xam daf koo tënkoon ci wallahu yaasumuka min annaas di ci ñaan yàlla mu musal ko ci yooyu moo commencé wallahu yaasimuna wallahu yaasimuna min kulli mahlikatin muy xasari gu am solo goo xam nee ñu baax na ci yu mel noonu ci kuy tukki waaye li ci am solo mooy na mu fa yàggee ak la mu fa jëlee ndax fa la fekk Cheikh Mouhamadou Ghali foofu la ko yeesalaate wurdu tijaan foofu la ko defee muqaddam am na xalifa sax ci Afrique gi féete sow jant waaye bi gis ba mu delsee dafa mel ne day keneen ku bees ci yitte yitte woo waxuma la yoonu tijaan waaye lu jëm ci lislaam loolu moo taxoon mu ba mu fa jógee ci la def jihaad jooju lu mel noonu itam mën nañ ko wax ci Mamadou El Hadj Mamadou Lamine Daraame El Hadj Mamadou Lamine Daraame moom itam ba mu tukkee moom dafa dox sax nee ñi waaye diggante ba muy dem ba muy des daanaka mën na fanweeri at ak juróom-benn ba mu ñëwee moom itam ci la déclaré jihad di woote lislaam su dee su dee Hadj Malick moom mbiram moo gën a yomb li tax mu gën a yomb en tout cas ci ci yoon bi ndax ñee ci yoonu suuf lañ jaar moom nag ci géej gi la jaar dafa def Ndakaaru Marseille Alexandrie Suez ci Égypte Jidda noonu la defaat kon du yoon wu sori du yoon wu mettee noona waaye moom itam dañu gis ne ba mu fa demee ak situation ba mu fekk bëggutoon lu may far toog mu jaawara ak yonent saa sallam ndax suuf saak na mu ko neexee nu mu bëgg yonent saa sallam nee ñu dafa am ñu ne ko daal yow da ngaa war a delluwaat ci sam réew liggéeyal fa lislaam waaye da nga gis moom itam ak cofeel ga mu ca am ba mu ñibbi dafa bind xasida goo xam ne da cay tàggu kaaba gi moo commencé astawdiu allah rabbi kaabata allahi wa kulla ma xawlaha ya kaabata allahi muy bu mu ñëwee ci la ubbi zaawe yi bare bari wàcc jóge ndar ndar ginnaaw bi lañ jóge ndar ñëw tiwaawoon fi la demee am zaawiya ndakaaroon bare bari daal ci réew taax yi am ñu tarbiya daf leen ay muqaddam ñu tasaare tarbiya ak wirdu tijaani ci Sénégal ak lenn ci sous raison bi léegi itam lu mel noonu nañ jiital Sëñ Tuubaa comme que dañ ko bëgg def chronologie ndax Alxaaji Ahmad Dem dafa dem dem dafa dem 1923 Sëñ Tuubaa ñun ñëpp xam nañ ne ajiwul waaye ñun ñëpp itam xam na ne yàgg naa bëgg aji wax na ko ci am mbindam waxe ko nu bare bari waaye itam waajoon na sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nettal na ko jële ko sëñ Mbàkke Buso waajoon na ba am kenn ci mbokk naar yi koo xam ne dana ko sax dama bëgg nga dem sa dëkk ba maanaam Tuubaa la ko waxe ne dama bëgg nga dellu gànnaar waaj ndax ren man ak yow ñooy ànd aji maa la yóbbaale nee na ndeysaan sëñ booba dellu foofa cay mbokkam ca naar ya daatal muy dés si la dégg ne tubaab yóbbu na ko en 1895 waaye moom waajoon na sunu looy itam bari na ñoo xam ne ajal na leen maanaam jox na leen wërsëg ñu aji waaye da nga gis sëriñ bi ak ni muy waxee lu jëm ci kaaba geeg ziyaar beeg yu mel noonu sëñ bi nee na wa huwa alladi ayqa jismi an ziyaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawwa mu ne yontu salaa sallam day sama yaram lañ gàllankoor ndax tubaab yi ñoo ko mayut autorisation 95 ba li fi jógee ngir mu sax génn bay sori waxuma laal di aj nag mu ne sama yaram gàllankooreef na ko ba mënut a jóg di ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sama làmmiñ ak sama xol fu mu toll mi ngi koy ziyaare baatu fu mu toll gi nag man maa ko jëfandikoo firee ko zawaaru gi nga xam ne siixatul mubaalaga la siixatul mubaalaga la siixatul mubaalaga lu muy jëriñ sax dawaam wala musul dawaam moom taksir maanaam bari répété fu mu toll maanaam fu ma toll wala maa ngi bari boog lu ma koy ziyaare ab xolam du jóg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom dafa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg lu aju ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam muy nit ña muy suuf sa muy xibaar ya muy sax maanaam garab ya lépp rek da nga nag wa qudnii lil baqii alladi ibtada bnu mad'uuni qudnii gi nag su ma dëgëroon fi dama naan dafa bëggoon dem fa des fa am na ñu ne sëñ bi ay jamono ñu bari bari yaakaar nañu gën a jékki-jékki rek jóg surtout sa Mbàkke Kajoor bi njëkk waaye lu ñu ci mën doon daal mooy bëgg gu mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg gu mu bëgg lu aju ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgg naa ñaan yàlla ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam arju bi rahmatihi almuhdaati sayyidina zawri madinatahu daara rayaxiini daarun متى ما يزرها زائر لهدى يسعد هي الدار دار الحق والدين نينا داي داف توسل تي يونس صلى الله عليه وسلم نينا ماغي ñaan yalla ci darajay yermandam ji nga xamne mom la may xeet wépp te muy yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw sallam moom te dongo yi mu place ma ziyaara ji dëkkam boobee nga xam ne képp koo xam ne ziyaara na ko di sàkk njub dana texe ndax mooy dëgg kërug dëgg mooy kërug diine waxan yaa rabbi zawra albayti walmadina ziyaaratan an irriya mafuna mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ma ziyaara ji madina ziyaara boo xam ne dañ koy ñoŋal waliif ngistal loolu wax na ko ak yu bare bare loolu itam moo continuer ci yoon yu ba léegi ndax gis ngeen aju maam sañ Mbàkke Buso ga sañ Mbàkke Buso maam sañ si Cheikh Anta ak Alaaji Fàllu loolu danaa ci ñëwaat ci kanam tuuti ndax dafa am loo xam ne da koy da koy laaj ci aju Sénégal kon suñ ci bañ a guddal lool ma ñëw ci Alaaji Amadou Dem bu Sokone Alaaji Amadou Dem moom Sokone li tax dafay firndeel ñàkk sécurité gu fa yàgg am Alaaji Amadou Dem mi ngi aji mille quatre cent vingt et un mu ngi tolloog mille neuf cent vingt trois jamono jooja euh, li ñuy wax Arabie Saoudite fi mu toll nii dafa dafa bennoo gul woon ca penku ba Najd la Abdul Aziz Abdurahman Turki Ali Saoud ko jiite Makka ak Madina Sharif Hussein Madina am na détachement Ousmane bu fa nekk am na ci barab yoo xam ne nag moom daanaka ay brigands ñoo fi nekk ay samba booy ñoo xam ne moom daanaka na ma yàlla jéggal waaye ci dogaale ci dañuy amee seen wërsëg bari woon na ci xijaas ndax 1926 ci la Abdou Aziz nangu Makka ginnaaw bi ci ba ci 32 ji ci la ñuy doog a def xam nga ci bi ñu defee 32 ba mu nangu Makka bi mel noonu ci la ñuy def mamlakatu xijaas wa sultanat najd wa mulxaqaatuha ginnaaw bi 32 nag ci la ñuy doog a def mamlakatu arabi saudi diggante boobu nag nga xam ne conditions yu métti moo fa am ci ñàkk jàmm ci la alaaji amul dem soo koon demee màkk da cee bind téere bu am solo mu ngi ko tudde tudde unwaanu tiraaz fi rihla ila ila ila ardul xijaaz unwaanu tiraaz fi rihla ila ardul xijaaz da ci nettali ne ñoom bi ñu ñëwee ba màkka moom moom teewul bato la jël dafa def comme Marseille par exemple Suez Jidda wàcc ñëw màkka woor yi ba noppi jëm Madina waaye am na ci barab yoo xam ne ba mu fa tolloo surtout fu ñu wax biaar ibnu abbas ak rawxa ak fu ñu wax waadi Quraysh moom sax ku waadi Quraysh la dafaaye Quraysh la ña fa nekk ay nu tëddi kaw kaw yi ñuy wax badu yi dañuy ñëw fekk leen ci fi ñu wax manzila xam nga ñoom lañu def par lieu diggante Màkka ak Madina ci jamono jooju dëgg la quatre cent soixante kilomètres lay tollool waaye fukk doxiinu fukki fan la maanaam moom la ñuy wax manazil manazil yooyu nag ci marxala la ñu def marxala mooy bis bi li ñuy dox firu daanaka nag dox bis bi ci li ñuy dox mi ngi aju ci fu ndox baree ak fu ñu mën a noppaloo biiru Abbas na ñoom dañ fay ñëw ñu jékki-jékki ne leen fii moom bala ngeen fee mën a jaar da ngeen di joxe nàngam waaye fañ gën a sonn mooy biiru Abbas nee na am na foo xam ne dañuy ñëw ñu laaj leen ñetti junay junay mooy livre livre or ca jamono jooju ñu ne li ñuy wax soq def soq def mooy loolu ñuy teg ci kaw giléem yi nga xam ne ñaari nit ñoo ci war wala xaw daj ba tey soq def nag day gën a rëy xaw daj tuuti nga xam ne ñaari ñetti livre ci xaalis bi ngeen di joxe te boobu yoruñu biir Abbas sëy nañ leen fa fukki fan ngir loolu ñu dem ba seen dund jeex na ba xeex am na ci marxala bi ci topp nee nañ dem nañ sax ba ñoom ñu jël seen i fetal jàmmaarloo kii ba am na ci ujjaaj yoo xam ne fa la ñu defee waaye métti woo xam ne ginnaaw bi ña doon laaj ñetti junne yi mujj nañu ne léegi su ngeen joxe benn junne yi ci or wala ngeen jox ñu benn rijal rial majid mooy xaalisu mamlaka osmaniya ñu doog leen jox ngeen jàll bu gis ba mu jàllee am na qasida wala qataa bu mu ci def mooy wax naan ولست أنسى بما لاقيت من باتي أيامنا في فريش ولا قريش بير عباسي ما بين جوع وأهوال تلم بنا وحر شمس يذيب شحمة الراتي mu ne laa sawta yusmau wala laa shay'a yusmau illa sawta bunduqatin bayna aljibaali wa ala shaami xarraati mu ne lu ma mën a fàtte itam du ma fàtte mukk sunu jamono jooje ñu amoon ci biiru abbas diggante xiif bu metti ak tiitaange ak tàngooru jant boo xam ne day seeyal sax wala day ruyal chax mu mooy lan sëñ Cheikhu naa geret geret gi ci suñu bopp bi xam nga loolu tàngooru metti tiitaange bi ak itam dund ba ñu yoroon lekkoon nañ ko mu jeex mu ne wannaasu yabkuuna min faqdi sabili ila daari alxabibi rasulillahi miqiyaasi xata ata alfatxu min rabbil anaami lana fa saalaxuuna bi maalin gayri maa yaati mu ne nag ba nit ñi mujj ndeysaan ñi doon jooy yaakaar ne dootuñu mën a eggati sax madina ba yàlla indi nag xéewalam ñu juboo ak ñun wàññi li ñu doon laaj ci xaalis kon ci situation yi ci mel noonu ci la dem ci ba mu jógee madina war a delluwaat Makka itam noonu la mel waaye li ci am solo mooy la mu ko tëjee ndax dafa wax ne wa fi hada alqadri كفاية لإعلام الغير مشاق الغربة وفوائدها من اللي ما في عندي dama bëgg xamal ñi ci def tumuraanke li ci nekk ci coono ak njariñ li ci nekk dan dan wa hada qalilun fi janibi rida allahi wa rida rasulihi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag li ma jànkoonteel ci tiitaange sama bakkan mënoon na faa def nee na du dara par rapport ak ngërëmul yàlla li ñu doon sàkk ak ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alaaji fàllu ci itam qisatu arrixlatu ila alxaramayni abra albilad alarabiya moom itam wax na lu mel noonu ndax dajaa nettali daan ne madina de madina am na wopp ju ma fa dal joo xam ne wopp juni mel musuma dal loolu wax wa hada almaradu alladi asaabani fi lmadinati lam yusibni misluhu qattu alhamdulilahi ala dalik waaye nag nee na ba mu paree واغتنمت منه صحة لم أحس مثلها في جسمي ginnaaw bi tam wér naa ba tan ga ma fa jële mosuma am du ni mel loolu lépp da nga xam ne li ñuy wax état d'esprit la état d'esprit la ak fonk buñ ko fonk ma ne nag gis nga circonstance yooyu àndoon ak aji màkk loolu moo tax sénégalais yi fonk àllaaji loolu moo tax sénégalais yi fonk àllaaji xëy na sax léegi la ta ji titre allaaji xaw a xaw a woyal waaye sa bu njëkk titre allaaji moo gën a foor ab sëriñ xool allaaji Malick doo dégg ñu naan ko sëriñ allaaji Malick te sëriñ a gën a foor normalement ndax nitu xam-xam nitu tarbiya nitu yàlla ku eggale nit ñi waaye allaaji Malick nga dégg allaaji Ablaye Niass jamono jooja condition yam yamuy àndal moo taxoon ba ci alaaji ahmad dem bi ñu tudd ma joxe ci benn misaal mu ko gën a jege alaaji mamadou lamin daraami ma ma tudd am na benn lettre bu mu bind gouverneur u ndar fekk dafa am nu ko di doon jàmbat ci diggante ak tubaab bi ak di ko wax ne nag am na foo xam ne su fa eggee nag ñu jàmmaar la waaye présentation bi mu defal boppam ba muy présenté boppam ci ngay xamee titre wala laqabu alaaji ak fi mu toll dafa wax ne amma baadu fa hadihi albarawatu min taaji alaarifin wa murabbi almuridin wa qaidi jeysh illahi almansurin aani bihi cheikh mahmoud lamin daan ne alxaaja bayt allahi alxarama almushahida jamica almanasik والزائرة wala ziyarat ar-rawdat sharifa gis nga wax na ko boppam ci ab sëriñ la taajul aarifin murabbi muridin wax na ko boppam ci ne qaid jaysh la al-mansurin ndax day woote jihaad waaye ni mu sonne ci wone aj màkkaam aani bi cheikh Mouhamed Lamine alxaaj waxut alxaaji Mouhamed Lamine kese dina alxaaja bayt allahi alxaraam mi nga xam ne dem na ba aji ca néegu yàlla almushahida jamia almanasik teewe na mboolem barab yi nga xam ne maanaam dañ faa war a def xeetu jaamu yàlla bu aju ci aj mu jublu wër kaaba geeg safa ak marwa ak sànni jamra ak taxaw arafa al mushahida jamial manahir teg ci ziyaara ar rawda sharifa ala saakini ya abdul fat ci nga xam ne kon ndekete titre allah bi lu am maanaa la woon ci Sénégal ndax li muy symbolise bari na waaye nag circonstance yam doon àndal bari na loolu taxoon ñu fonk ko noonu moo tax ñu naan allah ji allah ji allah ji léegi nag bañ demee nag ba Sénégal di dem ay ay junni junni 2019 ba mu jëdem daanaka mën nañ fukki junni ak ñett su ko defee nag ñay dem day bari am suñu bàkk sax day dem aj waaye bu njëkk nit yi xam-xam ñoo daal dem aj góor yàlla ay ay prince ñoo xam ne daal jekku nañ seen àdduna teew nag di jànkoon seet lu ne ci yoon bi ci loolu ci laay mën a déggee la ma daa dégg te ba may gone dañ daa wax ci alaaji baax ñun dañ daa wax naan xam nga màkka yoonu tool la ko du marché occas de jegewul moon la fa nekk amul marché occas amul tubaa du itam ci réew yi jege yi waaye màkka lañ wax waaye itam gis nga foofu sax dama ko fàtte waaye moom itam gis nga sëñ alaaji soo gisee bokk na ci ñi marqué xilaafaam ci yoonu murid te bokk na ci ñi ci gën a gàtt ne ku dul sëñ Abdou Khadre moom dina ci gën a gàtt ne man jàpp naa ne expérience ak jonjoo ba mu jonjoo ca Màkka ak Madina ak évolution maanaam soppiku gi mu ci gis ca ba mu doon dem ci année cinquante yi ba ci mujj bi ak nañu defaraatee Màkka ak Madina loolu da cay jàngale yu bare bare dara feeñ sax ci ay discours am danaan ña nekk Màkka ak Madina na Màkka ak Madina mel ñoo ko def ñoom ñëpp dëkk kon ñun ñi dëkk fii ñoo war a def lu mel loolu expérience aj ma ko may kon wax naa mag ña dañ ko fonke woon ci xaamuus maanaam ci littérature murid itam noonu lañ fonke aj moo di noonu lañ ko fonke la commencé ci maam Cheikh Anta ak sëñ Alaaji Mbàkke bu soog suñ faru ci seen aju 1928 ba léegi waaye man dama bëgg yu mel noonu ma ci delluwaat ci mbindum mag ñi jëlal ñaar jëlal Cheikh Moussa Ka jël Baye Cheikh Fall téere sëñ Moussa Ka ba muy tagg sëñ Touba tagg waa këram ci Ndiou Ndiaye sëñ Fallu de de xool ñaari baat yi fa lil faadili fadlun fala yubaaha laqad xajja wa labba wa zaara faaha yow ziyaare nga Màkka ziyaare Tuuba su yoneen ba jógoon nga bég si boobaa fa lil faadili fadlun fala yubaaha nee na sëñ Fallu moom am na nga ne loo xam ne kenn amul loo koy puukare woo ndax waxuma la doon gum doon doon sëñ Tuuba boroom xam-xam bi mu doon nitu yàlla ki mu doon jàngalekat bi mu doon waaye dacaa teg laqad xajja foofu waroon naa doy wala baa ci biir xajja la bokk na aj na la baykaw na wa zaara taha ziyaar na yéen faatu na tegaat yow ziyaara nga màkka gis nga répétition bi di répétition kese waaye takraar bi fi mu doon nii tawkiid la day dëgëral ak wone taxawaayu aj ak nit ñi nañ ko jàpp woon laqad xajja wa labba wa zaara taha ne ko yow ziyaara nga màkka ziyaara tuuba su yeneen ba jógoon nga bépp boobaa am na lan ca tegaat moom ay yokk la yoo xam ne mën naa am ñu ñu metti moo tax du ma ca du ma ca yegg maam sëñ Cheikh Fall itam lu mel noonu la wax sëñ Cheikh Fall tey ba mu wax sëñ sëñ Cheikh Gaynde Fatma ca wala fala boobu dana ko aalim nga xaafiz nga aalim nga xaafiz nga defar nga jàkka am nga jumaa ca Mbàkke aj nga Makka taalif nga ay téere dem nga say ba ziyaare nga yoneen ba ziyaare nga Bàmba daanaka soo de seet ñaar yooyu ñoo tolloo wax na xam-xam ak yu mel noonu waaye rôlam ci aj wax na ko kon da ngeen di gis lii lépp sëriñ bi ab laytaay la boo xam ne day wane njariñal aj day wane maqaasid yooyu dëgg-dëgg lii nag li ma ci jublu mooy wax li ma waxoon sànq naa ko baamuwaat aj su ci dara nekkul woon lu nu xam ñun lu dul ni ko lislaam fonk ni ko yoon façon fonk ni ko saxaaba yi fonk ni ko magi lislaam yi fonk ak sëñ Tuubaa waa këram ni ñu ko fonk rek doy nañ sëkk ñu xam ne am nañu gudd na waaye loolu laa ci dugg léegi su ñëwee ci maqaasid yi benn par benn su ñu neexoon di ko dënk mën nañu wax ne jubluwaayu aj ak meññat mi bari na lool balwaay yi maanaam fa ñu xamee jubluwaay yi bari na lool muy nusuus sharci yi muy alquran ak sunna ak waxi borom xam-xam yi nga xam ne ñoo koy leeral waaye itam fu nekk ci aj ci ponk bu ne ci waajib bu ne da ciy feeñaat maqsad yu bare bari bi waaye itam ci jeexital yi ci wàllum diine ci wàllum yar ci wàllum jikko ci wàllum nekkin ci askan wi ci wàllum wér-gu-yaram yooyu yëpp da ci bari ak nag njariñu fii ci àdduna ak njariñu fële ci àllaaxira moo tax li ñu wax ne Aksam ibnu Sayfi Tamimi la bu am maanaa bokk na ci xukama arab yi gën a siiw dafa am baat yi ñu koy askanale yu am solo yoo xam ne daf ko jëmale woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak kalam yi woote loolu nag mënees na koo jëfandikoo ci aj gi te muy lu wér ndax dafa wax ne inna alladi yad'u ilayhi muhammadun law lam yakun diinan kaana xayran fi axlaaqi nnaas muhammad sallallahu alayhi wa sallam li muy woote su dul woon diine sax muy lu baax ci jikko yi nit ñi kon nag mën naa ne aj su dul woon ak yool bi kese waaye ni muy defaree nit rek fii ci àdduna da koy jar waaye nag dana jar ñu ne njariñ yooyu ak maqaasid yooyu la tax muy jariñ mooy ñu defee manaasik yi maanaam jëfi aj yi ñu defe ko ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee te mu waxoon ne xudu anni manaasikakum te ñu def koy dem ci sellal ko te yàlla rek tax foofu sellal ko te yàlla rek tax dana ci indi loo xam ne alqaraafi indi na ko ci azzaxira alqaraafi maliki même Cheikh Alish indiwaat na ko ci minaxul jalil ci charx muxtasar Cheikh Xalil dafa wax ne aj ak umra ngir sal da cee yomb aj ak umra ngir sal da cee yomb nee na moo tax ñaare ku aji ba ñëw jafe na ci lool mu toog dégg fu ñu waxee aj te du ne ii man de at ma ma ajee nangam nangam nee na su boobaa ma ngi ci commencé gis bopp nee na nag loolu la lislaam di bañ ba tax suñu borom daal ne wa atimmu alxajja wal umrata lillah na ngeen ko def na mu ware te yàlla rek tax lillah nee na baatub lillah gi fi ne soo gisee yàlla waxu ko ci koor yàlla waxu ko ci julli yàlla waxu ko ci azaka te pourtant yépp lillah la war a doon yépp lillah la war a doon waaye li tax waxu ko ci nee na ngir sal dafa gën a yombe ci aj ak umra kon ma ne nag maqaasid yi ñu waajatu ngir sëli ak meññeefee dëgg-dëgg nag ka ca mën a jot mooy ka ko defee na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam diglee te mu def ko ngir yàlla selal kese tax kon nag ñëw leen ñu tàmbali benn par benn bi ñu njëkk mooy yool bi nekk ci aj yool bi nekk ci xaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ne man xajja haada albayta lafzu muslim wala man xajja lillahi lafzu buxaari falam yarfud walam yafsuq rajaa ka yawmi waladatuhu ummu ku aj te yàlla tax mooy tandiku yéen cee tere te tuddoon nañ ko ci ayat alquran bi falam yarfud walam yafsuq nee na su noppee su noppee day set ci bàkkaar ni ki nga xam ne kuy doo ko juddu noonu la mel bàkkaar topp ko loolu nag am na ay tafasil yoo xam ne ci téere fiqi mi ngi ci soo seere xalil ak muxtasar muxtasaraat xalil yi ci tabiaat jaam yi bokk ci waaye daal lu am solo la mooy àq yàlla moom noppi nga ci kon loolu rek doon na doy sëkk beneen bi itam bis bi gën a ràññiku ca arafa lu noonu de daal damay waaj a mar bis bi gën a ràññiku ci aj muy arafa yenn saa su dafa wax ne sunu borom bisub arafa day wax ak waa asamaan malaayka yi di puukare woo nit yi arafa yi di puukare woo nit yi arafa yi naan unzuru ila ibadi jaa'uuni shu'san ghubran di wax ak malaayka yi naan ah xoolal sama jàmm yi wuy si nañ sama woote dañoo fagg te saa lañ mooy condition yu métti saa lañ mooy ko xam ne bubbi bopp bi dafa xaw kii rek toppatoowu ko ndax xam nga aj maxzuraat yi day tax fagg mooy xaw a am poussière tuuti am na ci boo xam ne da cay teg daan yarjuuna rahmati wa magfirati ci loo xam ne ibnu abdul bar indi na ko ci at-tamhiid lima fi al-muwatta'i min al-maani wal asaanid nee na suñu woon da ci teg ne ñoom ñii de nekk nii sama jaam yi ngi nii wuyu si nañ sama woote bii ci arafa gis ngeen ci condition yi ñu nekk ak nii ñu soloo ni ñu mel te dara kat bëgguñu ko lu may yaakaar sama njëggal ak sama yërmande da ca ne falaw kaanat zunubuhum ka adadi ram wa ka adadi lqatr wa ka zabadi lmatari la gafartuha na ñii seen bakkaar yi su tolloon ne li mu feppi beeñ yi mbaa mu toll ne li mu toqi doxi taw yi mbaa mu toll ne li mu li mu fuuri ci géej gi yépp sax danaa leen ko jéggal daan ne afiidu ibaadi maghfuran lakum wa liman shafaatum lahu wa liman shafaatum lahu sama jaam yi bëbbal leen acca dem leen Muzdalifa dem leen jéggal naa leen jéggal naa ku ngeen finu maanaam jéggal naa ku ngeen sàkku ma jéggal ko loolu rek doon sëkk ci ci yoolu bañ su noppee nag am na yeneen yool wala bu am na yeneen maqaasid am na maqaasid ruuxiya ay jubluwaay yoo xam ne ci ruux la ak ci defar doomu aadama yu bari lool léegi nun nan xalaat koo xam ne demagul màkka ab jullit yàgg dégg ñuy waxtaane jaar-jaar yoon saa wala mu jàng ko fa mu gënee jamono màkk ga mu dëkkoon ak barab ya mu daa jaamu yàlla dafa wéetu lam fa daj ci bu ndox daal buñ bu ndox daal coono buñ ko solal moom ay saxaabaam génn guñ leen génnee nangu seeni alal mu ñëw Madina jàkka ja julliwaay ba diggante Uhud ak barab yooyu nga xam ne jaar na fa loolu lépp mu di ko yàgg dégg yéen saa fa mu tëdd ak ñaari àndandoom yu baax yooyee ak saxaaba yee ci baqiya mu di ko dégg ak foofa na mu mette woon kooku nag da ngeen di xalaat su taxawee ca Kaaba mbaa mu taxaw ca barab yoon saa salaam mbaa mu taxaw Uhud gis ñii ak li leen lislaam jaral ñii ak bor bi mu leen yore loolu rek jaroon na jaroon na dem ci barab yooyu maanaam li ñuy wax tourisme tourisme kese jaroon na dem Makka ndax histoire ba fa nekk muy jeexital yu bare bare waaye teewul da nga gis ne kooku dafay génne ak yeneen résultats yu bare bare ci ruuxam ci xalaatinam ci jikkoom ci defaroom bu ci njëkk mooy day xam ñoo ñee jiitu ñoo ñee jiitu xam ne fi lislaam egg tey ginnaaw yàlla ñooma loolu da nga dégg suñu saaga naan wa saabiquun assaabiquun ulaika almuqarrabuun ay waa ji gaa yi fi njëkkoon ñoo yóbbu mbóoti xarnu bi ndax li fi ne ñoom ñaareel bi mooy su xoolaatee nañ ko doon nettalee foofa ak soppiku ba barab bi soppiku barab yépp nag ak lislaam li mu amee ndam daf koy gën a dimbali beneen bi day mel ne diggante boobu yi mu nekk di def lenn ci jëfi aj yi jaamu yàlla aj yi comme sànni jamra comme xawaar comme taxaw arafa comme dox safa ak marwa ak armal bi jiitu ak labay ko da ngay gis ne day mel ne li ñuy wax décalage dootu amati dafa mel ne moo yoon saa dañoo jékki-jékki rek fekk waa jamono ji ndax day def ay jëf ci ay barab yoo xam ne yoon saa même jëf jooju la doon def ci même barab bi la ko doon defee day mel ne dafay jegewaat ruuxam day gën a jege ñooñu bay mel ne dafa fekk jamono jooju loolu di ñetteel bi ñeenteel bi itam lu mën a jegewaat ci defaru lu muy gën a dëgëral gëmam suñu borom subhanahu wa taala lu muy gën a dëgëral soppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yooyee nga xam ne lépp lépp luñ mas a am ba ci seen bakkan bi gën a foor seenu njaboot waxuma laa seeni alal dañ ko joxoon lislaam da leen di gën a sopp ndax su gisaatee foofa rek dem xubaa dem xibla tey xam ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu toppee woon da da ko da koy dolli loolu muy ñeenteel juróomeel bi ci aj ndiggante su gàtt ci ci nekk da ciy dindi yaafus ak bëgg lu yomb léeg-léeg sax da ciy dindi wéeru ci kaw doomu aadama am na ci ñoo xam ne mën naa am danañ am ay at dara lu mat cinq kilo bi ñu ko yor dañ leen koy yoral waaye ñaari ku wàcc aéroport international bu Médine say valise da nga ko yoral sax am na ñoo xam ne mën naa am dox lu mat sept kilomètres fukki at ak nangam ñu ko def foofu lañ koy def xam ne beneen dund la beneen cadence la boo xam ne dana ko dana ko kii nit ki mu mën a jéem a góorgóorlu ñaq ak itam di sukkandiku ci boppam ci yenn at yi beneen bi itam mooy su gisee barab yooyee dana tax mu gën a fonkaat ak ngëmam gën a yokkaat ay jëfam yu baax ngir sàkku ngërëmul yàlla juróom-ñaareel bi mooy sax nag am jom te am ngor ngir li sëñ Tuubaa daa wax naan xanaa xamul leen ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine soo demaatee ci barab yooyu noonu dana ko dimbali mu gën a dëgër gën a am jom gën a am ngor gën a am fit xam ne mbir lu mu jafe-jafe rek mën na cee gën ndax mun da nekk ci jamono ji ñu nekk mu nekk ci situation bu gën a métti bi ñoom Bilaal nekkoon ak Suhayb Ruumi Salmaan al-Farisi Abdullah bin Mas'ud ñoom ñoo ñi nga xam ne doxab mustad'afuuna fil ard lañu moom te gis nga fañ mujje juróom ñetteel bi te day sofu ci mujj bi da koy wóor ne dëggay mujj alxaqu saabitu ñu ko sëñ Tuubaa wax wa ama albaatilu wa in ala fa zaahiqun wa saabit day xam ne yàgg-yàgg na nekk ci dëgg rek lu mu wéet wéet na nekk ci dëgg ndax yàlla dana ko ci fekk yàlla dana ko yëkkati yàlla dana ko dara jaal wa kalimatullahi hiya al-ulya kon juróom-ñett yi ñu ci tudd mënuñu ci tudd yu bare bari ci wàllum esprit ak mentalité nit ki ak xalaatinam ak jikkoom ak biiram waaye li koy tënk mooy jikko yu ñaaw itam da koy dindi ci moom da koy dimbali itam mu mën a ràngoo jikko yi yëgën te ba cay jiitu surtout ci wàllum ruux mooy digganteem ak borom subhanahu wa taala defar gi aj di defar nit ak biiram ci mbooleem ponki aj yi ak arkaani xaj yi non arkaani ko mooy mooy ponk ak waajibaat yi yépp da ci da ci feeñ nañ ci jël ay benn rek ci lu ujaaj bi def ñun nag suñu waxee ujaaj fii ne teew kenn lañ ci biir loolu waa délégation bi wax suñu dañ naan ujaaj bi ujaaj bi lañ wax naan ujaaj bi loolu nag wax yi ni wolof la waaye du arab xam naa ndax su dee ujaaj moom ci arab jamono la waaye li ma ci bëgg a jublu su ma nee ujaaj ngeen xam ne doo kenn laa ci ujaaj bi lu mën a def ci biir aj rek dafa am lu muy jeexital ci biiram ci xolam ci yéeneem ci defaroom nañ ci jël ay yenn at yëpp du mën a nekk benn armal ak ni ñu koy defee armal xam nga armal waxuma sangu gi waaye làmbaay gi ak taraxlaay yi su dee góor benn beneen bi la mu remplacé ndax lu ñu ñëw li ñuy wax ak maxiit ak muxiit maanaam lu ñu ñëw mbaa lu wër ab cëram di ko tere góor di ko tere muur boppam di ko tere jaxasoo soxnaam ak la ca aju ak yeneen yi ca topp masalan rëbb wala tour deret wala garab yi nekk ci xaram bi ak yu mel noonu muy dammute gis nga discipline yar bi muy def ci nit di ko tele xoof boppam ak kawaram ak ay weyam yar lay jàngale am na ci ñoo xam ne nit ki xëy na su ci jógee ci école bi école waaj bi mën na am sax dana am ak dal tumaaniina dal ci julli ndax am na ci ñoo xam ne suñu julli seen cër yaa nga fu ne jàpp seen i bakkan léeg-léeg foog ci seen nopp wokkatu fi geesu ak ñàkk dal di ming te yooyu yëpp wuute na te mel na ne aj jii ku ko ku ko jële ci ci ci koor mën nga ko jariñoo ci aj waaye itam aj jeeg benn yar bu muy laaj ba soo armalee sañoo muur bay muur sa bopp soo dee sàngu sañoo xóof sa kawar sañoo leewi say we moom itam beneen xeetu dal lay jàng akub yar waaye itam dafa am leen lu muy jàngale mooy li ñuy wax ak taslim nangul yàlla nangul yàlla da ci bari lool xoolal sëriñ bi aj dafa bari loo xam ne du neex a comprendre xoolal wër aw xeer maanaam kaaba dem ba ci barab ci biir xeer yi nga ñëw fóon ko jël aw xeer di sànni xeer wala yow góor ñu ne la taraxlaay kese ngay kii ak làmbaay loolu nangul yàlla la laa joo ko sabab bi am na ndax yi ci tudd ni sabab la waaye maanaam dañu ci bi ci njëkk rek mooy su la yàlla ne defal defal wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum xayratun min yàlla ak yonentam suñ digalee ab julli sëñ ta naan naa jullit bi bàyyi bi wala lu tax nangam kon arma la ngoog la bayka ci la bokk la bayka dafa bari lu mu jàngale rawatina ci dëggal buum gi la jokkale ak sa borom te mooy ak njaamu ndax xam nga la bayka fi mu doon nii du leen lu may sellal jaamu ngir yàlla won ko ne yaay sama borom yaa ma xéwale la bayka day firi benn xaaj ci shahaadata yi ashhadu an laa ilaha illa allah gi la bayka da koy firiwaat ndax da nga naan labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk yàlla wuy naa la wuyooti la wuy naa la amul benn buur bu dul yow inna alhamda wa nicmata laka wal mulk sant yaa ko yooyoo xéewal ci yow lay jóge nguur sa yëf la laa sharika la yow rek ka fi nekk amul kenn kuñ la sañ a bokkaale ci lenn moo tax alxurashi wax na ci sarxam ci muxtasar bi ne maanaam labbayka mooy al ijaabatu baada ijaaba wuyu wuyooti ba mu ko firi ndax da ne sunu borom subhanahu wa taala ca azal ba mu ne alastu bi rabbikum dañ ko wuyu woon ne ko balaa ba mu ne ndax duma seen borom dañ ne ko balaa ni ko alquran waxe wa id axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim durriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim lu mu leen wax alastu bi rabbikum qaalu bala ba mu leen ndax du sama ndax du ma seen borom dañ ne ko aha kay kon wuyu nañ ko ba mu ne wa yuqaalu nee nañu itam ibrahima alayhi salaam sunu borom bi mu ne ko wa azin wooteel wa azin wa azin wa azin linnaas fi lxajji yaatuka rijaalan nee na booba nit ñi dañ ko wuyu ci seen ndigg yi wayu ñu ne ko bala kon nag mooy ñaari wuyu yoon kon su ne labbayka mooy wuyu naa la ca bu njëkk ba wuyu naa la ci aadama kon maa ngi nii ne wuyu naa la ci ibrahima kon maa ngi nii wuyu naa la ca bu njëkk ba ba nga ne yàlla su dugg wuyu waat la ba nga waxee ibrahima wooteel kon maa ngi nii ñëw na xorosi nag nee na moo tax nee nañu sayyidna ibrahima ba mu ne wa azin ku wuyu benn yoon da nga ñëw benn yoon aj ku wuyu ñaari yoon da nga ñëw ñaari yoon ku wuyu ñetti yoon da nga ñëw ñetti yoon ku wuyu téeméer yoon da nga ñëw téeméer yoon doon dañ dund téeméer yoon ba aji téeméer yoon xam naa ne yoon waaye foofu labay ko day wone nangul yàlla kon mu maqsad boobu ñetteel mooy manaasik yi jëfi jaamu yi ñu def tudd naa leen la ci sant ne li muy dimbali mooy gën a nangul yàlla comme li ma tuddoon ci sànni jamraar daw ci diggante Safa ak Marwa am na ci diggante boo xam ne maanaam dox bi ko am na diggante boo xam ne nga xaw a ñukk ak ñetti ashwaab ñetti tuur yi tawaaf yi nga xam ne da koy ñukk xam nga lan moo tax nga war a ñu ko fii war a dox fii simple yooyu wax dëgg yàlla ñëw ci waaye nag nangul gi rek loolu fi mu toll nii bind la bu mag boo xam ne su kuy jëlee mooy yàlla ndigalam moom jafe la tudd neen Seydina Omar ibnu Xataab radiallahu anhu ñëw na bay foon xajul aswad daane ko wallahi inni la uqabbilu wa inni aalamu annaka xajarun la tanfau wala tadoor nee na maa ngi lay foonde leer na ma ne aw doj nga du yaay jariñ du yaay lor ndax jariñ ak lor mi ngi ci loxo suñu borom subhanahu wa taala waaye dina walaw laa anni raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qabbala kama qabbalta damaa gis suñu faal def ko rek moo tax ma def kon mooy nangu ñeenteel bi tam muy li ñu def ci aj muy lu am solo mooy zikr tudd yàlla yi zikr suñu borom subhanahu wa taala du ko tudd fu bëree baree bëri lënkale ko ak jëfi aj lënkale ko ak barabi aj lënkale ko ak ni ñu fonke suñu way jur sunu borom nee na wadkuru llaha fi ayamin maadudaat muy fan yooyu aj ak ñetti fan yi ci topp ayaamu tashrik sunu borom waxaat ne laysa alaykum junaaxun an tabtagu fadlan min rabbikum fa ida afadtum min arafatin fadkuru llaha inda almashari alxaram su ngeen jógee arafat tudd leen yàlla ci mashari alxaram wadkuruhu kama hadakum wax lan moo tax ñu war koo tudd ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فإذا أفضتم من عرفات درت فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا nga xam daf ko daf koy tudd ci ay barab tudd ko ci ay bis tudd ko ngir lëkkale ko ay jaamu yàlla yu jëm ci aj waaye tudd ko itam wax xéewal gi ñu defal tudd ko ngir ne dañuy tudd suñu wajur man maay doomi diw diw te yàlla ak gën a yeyoo kon dañuy gis ne baam na fi lu bare bare tudd na ko sax ba tudd ko ci suñu rendi ak yu mel noonu zikr bi am ci aj dafa am lu mën a jariñ lu bare bare benn bi mooy day xaw a équilibré ci diggante jëfi aj ak waxi aj ndax aj lu ci ëpp day ay jëf ay wax da cee bëri te jëf yi par rapport ak waxtu yi ñu aj jëf yi da cee gàtt maanaam dox ko baab marwa ginnaaw ba nga wëree kaaba bi sànni jamra xaw arafa diggante bi ci des dafay waxtu bu bare bari woo xam ne suñu ko occupé wul rek jafe-jafe mën naa am zikr nag day ñëw di combler day maanaam day ñëw di feesal diggante boobu nga xam ne jub la waroon doon loolu di benn bi ci des tudd yàlla gi da lay dimbali ci lan moo tax nga ñëw fi li la fi indi yàlla mi woote ba nga ne ko labbayka zikr googu da lay dimbali ba nga moytandi ko li muy tere nekk te zikr gi rek nekk ci ndigal yi la ñettal ba itam kuy zikr kuy tudd yàlla yaa ngi teewlu yàlla maanaam teewlu alxudur ma allah subhanahu wa taala ñeenteel ba ci zikr gi loolu sax mën naa am ci en général lay doon day dimbali ci gën a gën a mën a muñ am na sax loo xam ne xëy na war nañ ko dugg ci menaces yi mooy lu yéeme nit ki ci aj mën nga woo gis mu def lu jafe da ngay jàpp ne mënu ko am na ñoo xam ne ku ne la woon mën nañoo jógee fa ñu dal ca ja ca ca Muna dox sànni bi jàmba ci bisu Tabaski jóge fa dox dem ba Màkka tawaaf maanaam juróom-ñaari wër yooyu ci bis boobu ak ni méttee jóge fa sawaat maro doxaat ñëwaat ñëwaat ci mun a nga yaakaar mu gën jàggat li ma wax dana mat fukki kilomètre ak juróom gën jàggat ndax jëmmi rek wër kaaba gi rek yombul waaye fu muy jógee diggante mun a ak jamra mën na 4 kilomètres jamra ba kaaba ga mën na juróomi kilomètre wala gën jàgg mën na juróomi kilomètre mu war a des waat loolu aj rek ko man ak condition yi aj di làmboo ak tudd yàlla gi ak wéetu ko beneen bi suñu génnee ci wàllum tarbiya bi ak li muy def ci zikr ci armal ci talbiya ak yeneen manasik yi ñu def mooy nag maqasid ijtimaa yi dafa am ay njariñ jubluwaay yu am solo yoo xam ne aj dana ko jural nit ki ci nekkiinu nekkinam ci biir askan bi nga xam ne du sax yool bi du sax defaru gi rek ci biir nii ak digganteem ak boromam waaye digganteem ak ak ñi muy dundal ñi ko gën a jege ba ci askan wi gën a yaatu aj ci boppam da ngeen xam ne dafay dajale ay kuréel yu bare bare ñu bokk fi ñu jóge ñenn ñi di bokk néeg ñenn ñi di bokk ay xayma ñuy jaxasoo ci ñu bokkut aada bokk ñu cosaan bokk ñu programme bokk ñu hygiène de vie bokk ñu lu bare bari ak horaire yi ñuy tëdd ak yi ñuy yeewu moo tax dañu dimbali ci ujaaj yi ku nekk mën a jaaj moroom ci xam-xamam ci man-manam ci expérience am ngir jonjoo gu am solo la laqad wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya ñaareel bi nekkin yi nekk ci aj ak ñoo xam ne xëy na miinuñu leen dana tax ñu am comportement bu gën a responsable gën a am sago li ñuy wax retenue daal bokkut nga mel ne ku nekk sa kër ne faaxew rek toog nga xam ne diggante boobu am na suñu yenn jikko wala comportement wala aada yu ndaw ndawaan yoo xam ne danañ fexe ba foofu moom di ko jëf fësal dañu gën a fësal mooy suñu raf jëflante bu gën a rafet suñu programme bu gën a rafet suñu nekkin bu gën a rafet loolu itam njàng la boo xam ne mën sa ko cee jële ñetteel bi mooy dundin wu rattax waññi am foofa benn néeg boo xam ne ñeent koy bokk wala ñaar gën jaa bari gën jaa néew laa bëgg wax ak xayma yi nga nekk fa ku ne waaye ku nekk ak aadaam ku nekk ak doxalinam am na ci yoo xam ne doo ko gërëm waaye nga koy muñal di ko suturaal moom itam muy def noonu ak yow beneen mooy dimbalante bi ci am ndax dafa jur àndandoo boo xam ne xaarante bi dimbalante bi ci ku xaw a néew doole yar na ko leen ci ay bagage am su fekkee ne mag la léeg-léeg mu am lu mu wàcc bëgg koo jënd nga kéer ko yu mel noonu yooyu day du am solo yoo xam ne dañ ko fa jànge léeg-léeg lebalante mayante ay xaalis yoo xam ne mën naa bañ a bari waaye lu mu néew néew léeg-léeg dana fa am solo ndax daanañu wax léeg-léeg ne ku say réal jeex ku say réal jeex say ree jeex kon lu ci am solo la beneen bi nag mooy relation ya fay ya fay juddoo relation yooyu juddoo ci diggante ujaaj yi relation maanaam ak xaritoo léeg-léeg sax ak goroom lante mën na faa dikk léeg-léeg ay tuddante doom ay takk nga di goro goroom lante wax naa ko maanaam takkal ay sëy ci seen biir ci diggante ñoo xamante ni aj rek ka leen boole ñoo xam ne mën naa am suñu woon aj duñu gisee ilaa yawmil qiyaam kon loolu itam dana ko jur ci wàllum nekk ci social am na beneen bu mu jur ci nekku social nga xam ne nekk généralement lay doon mooy wanewaat yamoog doomu aadama yëpp mu delluwaat ci aaya alquran bi ya ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum lu ngeen bari bari li ngeen bokk leen la muy seen cosaan muy yàlla muy lislaam muy kaaba gi kon gënante wu bi du ci wërsëg du ci cosaan du ci couleur du ci làkk du ci am solo mooy ragal yàlla foofu dafay feeñewaat sunu mbokk yi nga xamante ni dañuy def li ñuy wax guide religieux yi danañuy wax lu am solo dañuy wax ne nit ki ci aj war na fay jànge avant première bi yowmal qiyaam ak yowmal qiyaam mu ne armal bi sangu gi mooy dee gi su armalee mooy sang bi munaa nag moom mooy bàmmeel ndax munaa ñaare su fekkee ne ci xayma yi nit ki dañ ko jox benn matelas matelas bi un mètre lay doon un mètre nga xam ne maanaam doo mën di wëlbati ko nam la neexee ñu ne comme da war na ci jàng bàmmeel suñ demee nag ba arafaat nag mooy dekk ba moom ñëpp rek dafa mel ne pang la ñëpp dajaloo benn yoon loolu war nañ ca jàng lu bare bari yoo xam ne ci suñu nekkee ñu suñu biir la suñu bilaat daa mel ne waxtu léegi mu jotee man li ma dese bari na ñaata ji cinq minutes nañ ko nañ ko tëkk mën nga dem bas 19 heures 5 waaw ba cinq 10 dix ok suñu blaat mayaat nañu tuuti juróomi minute waaw juróom mi jox waaw kay léegi aj itam noonu la amee njariñ ci wàllu wér-gi-yaram ndax li ma waxoon sànq rek mooy benn ci yëngu yi am na ñoo xam ne jàppoon nañ ni mënuñu ko ndekete mën nañ ko loolu tam waroon ci jàng lu bare bare mu tawaaf bi muy dox Safaa ak Marwa yi ak barab ya nga xam ne moo ci aju wala sax soo soo jógee war a jëm sa hôtel jëm ca Kaaba yu mel noonu beneen ba itam mooy régime lekk ndax condition yi na muy demee dafa tax nit ñi duñ lekk lu bari da nga xam la ñuy lekk itam ndax dafa am yoo xam ne ku ko lekk ñaare mën naa indi ay jafe-jafe te foofa mën naa am wan ak yéex yombi wut noonu mën naa am itam rang ba dana gudd yu bare bare daal ñoo ci dimbali ngir mën koo def am na beneen bu am solo ci ay boo xam ne ma mën naa dugg ci wàllum développement économique wala li ñuy wax justice sociale wala li ñuy wax redistribution maanaam séddalewaat wërsëgu jaam ñi mooy lu jëm ci yi ñuy rend ci aj aj dafa bari yu ci rend yoo xam ne fuqaraa yee masaakin ni ñoo ko mu ñu am solo masalan li ñuy wax tamattu ci aj wala xiraan te daanaka boo maanaam xeetu boole aj la ak umra te day waar waral deret te muy am hadiyu ak yeneen yeneen yoo xam ne danaa ko ci kan deret lay waral joo xam ne jaam yàlla lay doon du lu ñuy fay ndax dafa am loo xam ne fidyal dañ koy fayee ndax dangaa def lu ñu tere ci aj bi loolu beneen affaire waaye teew da duggaat ci bi waaye hadiyu yi ngay gis ak fidye cay topp dañ koy jox ñu ñàkk su dee fii sax ki ko joxe sañu jële haj yu itam boo xam ne dafa dafa ya tey jamono yu yàqu dañoo al hajyu al aaqib qabla buluug al mahal borom sañu jële waaye teewul ya nga xam ne borom sañu jële teewul yëpp dañ ko war a joxaat wala dañ ko war a bokkaat faqiir yi ak miskin gis nga nag nañ bàyyi xel ci ne deux millions cinq cent ñoo aju woon deux mille dix-neuf suñ jàpp ne ku nekk ci ñoom def na haj yu wala fidee wala yu mel noonu ñu xool loolu suñ ko waroon séddale ci ñàkk nan la war a toll te ñu mën koo def ci ay frigo conser conservation bu baax mën koo tasaare ci ñàkk ci xarama yi nii feneen ci Arabie Saoudite ba ci yeneen ci yeneen réew te daana am ñu xool loolu la mën a jur loolu day mën a dimbali ñu ñàkk ñu baree bari ci wërsëg wii di wàllum ndawal goo xam ne dañ ko mën a jariñoo ci lu yàgg te suñu borom daf koo teeloon wax والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب لكنك فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر لك لنتي ngeen jox ci ñi nga xam ne dañoo néew doole ak ñi ñàkk كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها nee nañ bu njëkk ci jaahil yooyu ñoom daa nañ ko def hadi yooyu waaye suñ ko defee deret ji dañ koy ci taqal ko ba taqal ko seen i bunt deret ñu taqal ko seen i bunt kër yàlla na lan yanaal allaha luhumuha wala dimaauha deret ji amaluma njariñ ndawal gi amaluma njariñ walakin yanaaluhu taqwa minkum li ma ci soxal mooy ragal yàlla gi maanaam mooy defin bi ma diggaleen ngeen def ko ngeen jariñ ci alqaania wal mu'tar sunu sëriñ docteur Ahmed Taha Rayaan faat na daaw jéeg bokk na ci ñu jàngal bi nekk sharia wal qanun doon na jàngale ci jàngal islam bi nekk Madina Munawwara dafa am maqaal bu am solo bu mu def ci azabaih kese mu indi ci ab lim boo xam ne mu ngi toll ci juróom-ñaar yoo xam ne deret dana ci war benn bi mooy tamattu tamattu benn bi mooy xiraat ñaareel ci doon naa ko ñetteel bi mooy ixsaar ixsaar mooy la waxoon fa ida axsartum jàppaleen ma ci waaye daa mel damay waaj tam wa atimul xajja wal umrata lillah fa in axsartum fa ma staysara min hadi fa in axsartum fa ma staysara min hadi daa noonu ixsaar mooy nit ki armal ba war a aji ginnaaw bi am gàllankoor ngir noon bu ko dogaale ba mu ta egg mbaa mu wopp dafa war a def tamattu dafa war a def hadiyu wala tamattu loolu mën naa doon giléem mën naa doon nag mën naa doon xar léegi beneen bi mooy koo xam ne li ñuy tere masal dañ ne ko woon bul sol lu ñu ñaw wala bul muur sa bopp xeet yu mel noonu wala bul dindi sa kawar mu def ko ngir lor maanaam koo xam ne xëy na boppam dafa am lu ci nekk ba mu watu mu war a def fidya boobu dana tax mu tuur deret beneen mooy ku rey xayawaan am dundat mbaa mu rëbb ci jamono yi nga xamante ni moom la armale su ñu ne dafa rey loo xam ne dagan na mooy xedda àqra ba xeet yu mel noonu te am na ci téere yi su dee nag ku rey lu ñu teree rey loolu moom fa jazaau mislu maa qatala min naam la aqwaam wax fa jazaau mislu maa qatala min naam nga xam ne dañu xool lu mu tollool su fekkee ne kéwal la mu doon aw bëy su fekkee ne mbaamu àll mu toll aw naq xeet yu mel noonu beneen bi mooy koo xam ne ajam wala umraan da koo yàq ci loo xamante ne comme jimaa ak yu mel noonu mbaa arafa raw ko ngir calcul bu mu calculé woon bu ci ci calendrier loolu yombatul léegi kon yii yëpp deret da ci war da ngay gis bu nekk ci deret war ci ab gàtt ñaata ñaata nit ñooy génne gàtt nga gis nag ñaata gàtt yooyu da alfuqara miskin yi mu jëm nag lan leen di jaay day lu lu am solo loo xamante ni lu lu mat a bàyyi xel la ci aj bi ndax itam dafay dafay def benn rôle développement ak itam dimbalante ak nit yi ñi nga xamante ne dañoo dañoo dañoo doon nit ñu ñàkk su ko defee nag su yooyu jàllee muy yool bi muy tarbiya bi muy nekk ci social bi muy bu mujj bi ci wàllu économique dimbalante ci sunu biir am na solo lool waaye dafa am lu ci loo xamante ni jar na di wax jamono jii nag mu mel ni dafa war a mat a bàyyi xel ndax jamono ji day jamono yu nit bopp sa bopp jamono yi matériel ba nga xam ne nit ñi am nañ jafe-jafe benn jaamu yàlla duñ koy defee de façon automatique lay doon jóg siggi sëgg waaye dëgg-dëgg ci kaw gi la ci biir gi nag day am jafe te lu mel noonu lu mat a bàyyi xel la ci aj gi beneen bi itam mooy li ma waxoon sànq nit ñi titre alaaji bi dafa da leen a ëppal doole alaaji baax na lool nag waaye nag teel koo waajal ba xam na nañ koy defee dana ci baax comme mag ñi bu njëkk nañ ko daa def foofu nag moo tax li may tëjee mooy li wax culture di xaj maanaam saqaafab aj moom lañ war a dundal moom lañ war a dundal ci nit ñi ndax soo gisee ñu bare bari ni ñuy ajare nga xam ne culture boobu des na ci ñoom ab tukki lañ ko war a gën a def ak seeti ak tourisme ndax fi muy feeñe ca ba ñu consultation consultation ba ñu def rek jafe-jafe dana ko commencé am da ngay fu dem ci docteur mu leer na ko ne mënut a aji màkk di nëbb jàngoro kenn sax naa ko kéel nangam wala fa ñuy bindoo bu xante bu mel ni kenn xamul xuloo fa ñuy duggee ci oto yi fa ñu duggee ci avion yi bare bari nga xam ne culture at bi wax dëgg yàlla def na bu baax a baax beneen bi tam ci nekk yi ay jafe-jafe da nga gis yoo xam ne suñu ñëwee rek dèjà lañu la ñu xamoon fii ci beddanti koon de kuréel yee gàng yeeg yooyu dañ koy bëgg a dundal fële ñi ñooy ànd ngir nangam xalfiyaat faqaaf yoo xam ne xëy na fii du du ab jataayam nit yi teer yi am na ñu xool nit yi àll yi nit àll yi am nañu leen di xool yu bare bari yu ci am yu yu kiimaane yoo xam ne culture aj ci boppam moom lañu war a jëmbat ci biir ñi nga xam ne ñoo war a aji loolu nag jortu naa ne dana tax ñu war a jàngal nit ñi bu baax a baax ñu leen war a jàngal bari na état bi am na ci ab rôle bu am solo jaare ko ci ñi nga xam ne ñooy organiser aj muy délégation générale au pèlerinage waaye ñi doon privé di yóbbu nit ñi aj ñoom tam am nañ ci solo imaam yi am nañ ci solo jàngalekat yi am nañ ci solo ñiy waxtaane ci biir ci rajo yi am nañ ci solo émission yeeg plateau yeeg xutba yeeg bayaan yi yëpp ngir nit ñi xam ko te jotaay bii nag jar nañu wax ne benn la ci jotaay yoo xam ne day xamale lu mel noonu loolu dana ci dimbalu baax a baax ndax dana tax nit ñi gën a fonkaat aj dem ci ak yéene ak sellal yóbbu lu ci yóbbul bu am solo ba nga xam ne suñu dee dem ni ñuy fexee ba waxtu yi war a sànnee jamra waxtu yi war a tawaafe noonu la ñuy sàmmoon teg jikko yi mu war a àndal ak comportement bi mu war a àndal kon daal ndem waxtu yi mi ngi gën a jege Sëriñ Abdul Ahad li ñuy def rek mooy tënk foofu waxtaan wi jégluwaat bu baax a baax lu gudd la itam ndax nag aj ci boppam moo toll noonu am na ay njuumte ay rëcc rëcc yoo xam ne du ci ñàkk waaye ñu ngi koy jéglu bu baax a baax ndax li ñu bëggoon rek mooy laabiranteeg doomu aadama yi fàttali leen teg ñoom loo xam ne ñi fi nekk ci borom xam-xam ñooñu ko gën a xam fuuf waaye dafa fekk na tey jii nun la yàlla na too nu war a toog fii di ko fàttali leen ak ñoom fi may tëjee mooy ñaan yi ma tàmbalee woon ci ñii di taxaw jumaa ji ci ay may yi ñi yore wàllum culture bi wàllum organisation bi ñi yore daara kaamil yi ak ñi fi jàngale ñëpp rek ñëpp li leen boole mooy ngir yëkkati kàddu lislaam mu gën jëm ci kaw ñu ngi leen di ñaanal tawfiq suñu boroom ak suturaam ak mottileem di ko ñaanal suñu bopp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu